ma ne la nu ma buggee woon Yaya Jammeh ma ne ko tiaraasi bi dafa ñëw ma ne ma seet Goro Cissé ma ne ko mu métti ma ñeneen ak ñeneen mel ko mu ñëw mu metti ma ma ne ko ah kon ok lii la suma président bi doon def. soo xoolee three years baro mu ngi ñëw ak bu moo toog dafa metti nga toog fekkuloo fa dara gisuloo fa dara xam nga nga ñëw war a mun a taxaw war a liggéey lii si biir Banjul war liggéey mun a. def plan yoo xam ne yaa ngi ko war a liggéey throughout the whole Gambia basa yeeg yooyu noonu so Banjul fii nii Barrow développement bi si three years amee tubaab fakaa la macha allah. wante I love Barrow dama ko bëgg si suma xol te ñu ne ma xay ay dama foogoon yaa nekkoon APRC ne leen enkañ ah, man ku ma xamoon xamoon ne Aida APRC la. dégg la amoon nañ président boo xam ne I was APRC I APRC ku ma xam ne APRC laa woon wax dëgg fa ne yàlla. Jame dafa du muy woon Banjul dafa wonoon Banjul gannaaw jógu ne yàlla fàtte dafa fàtte woon Banjul daal man su suma gis-gis parce que xale la wante dafa fàtte woon Banjul Banjul dafa deeyoon totally Banjul développé woon dara benn développement amu fi woon su ma fàttalikoo si suma maam mu ma doon wax ne time Jawara amoon na time boo xam ne si 1946 suma maam daf ñu daan expliquer Banjul parce que ma laa waa du passé parce que I was so young ni mu daan expliqué daal ne Banjul mosoon naa flotte ba ñoom sa gaal leen daan jël soo waree dem si kër bi kër tu kër da ngaa use gaal si time Jawara so even si kër yi sax dañ daan use seen pour wanag yi dañ daan use sio soo usee sio at end da jël sio bi dem sànni ko si bij bi a nga Banjul meloon na noo xam ne dawoon na yaram torop dawoon yaram torop dëgg fa ne yàlla ma si fekkee daal xanaa moo nekk ay paag yi ab yooyu noonu pax yee yooyu noonu dañ daan dem di foy soo suñu demee foy ba ñëw daal dañ daan mel noo xam ne suma yaay daf daan mer noo leen tilimee xooleen sa yaram yi nu nekkee poto poto léegi léegi suma nijaay jàpp ñu dóor ñu xam nga soo ñu dem ba affaire woon dama na yaram daal mu baax ñu meloon ak man nu ma si fekkee woon métti woon na moom definitely wante sant yàlla day ñëw ba yàlla may ñu koo xam ne baro ñëw ne bakkenam Banjul wax dëgg fa ne yàlla développe na Banjul taxawu na Banjul suma benn sista bu ñëw wax Awa Faye right now mu ngi Angleterre doomam bi def ma fàttali ko dafa demoon play yi paagi afdaay ñëw yaram bi yëpp taxa poto poto dafa jàpp doomam bi daf ko dóor ne ko suma ma la gisatee si paag bi foofu noonu soo ñëwee papa dama laa rey moo tax ñu toog baro liggéey afdaay noo xam ne macha allah tubaab fakala macha allah aw fay gëstu ma mu ne ma ayda mu ne ma sama carte bi baroo ko moom ne ko aha keñ wax fa ne yàlla baro bugga naa ko buga boo xam ne ñoom Fass si ñoom anti roox yi ñoo nekk si tourist market bi wonte ñu ne ma Aida ñu ne ma ñëwal ñu xicca ma indi ma si UDP bureau bi ma nekk fa gars yi gars toog ñu génnaat ñu ñëw si bennoo ñu foom bennoo keroog bu ñoo foom bennoo Crab Island ñun five jigéen ñoo fa nekkoon ma join leen xam nga ba bennoo taxaw ba tey mu ñëw NPP ñu ñëw mu am ay thousands of thousands yoo xam ne te ñu ngi join Barrow biir Banjul ñu lépp ñu sant yàlla wax dëgg fa Banjul rek a développement ni Gambia sax laa wax du Banjul rek Barrow développement nam amul si Banjul rek fu nekk laal na ko te xam naa su paree Banjul mu ngi fees komba bi te su feesee komba bi waa komba dinañ kontaan wax dëgg fa ne yàlla xolam yaatu na te mun na ko te dina ko def incha allahu rabi man dama bëgg a baro si dama dee toog sax pël yu nekk biir marché wala dama romba marché sax ñu ne ma Aida Barrow ma leen leen 100 pour cent ma gën a neex si Barrow Barrow soo waxee rek reena Barrow soo waxee rek mu ne Banjul Barrow soo waxee rek mu ne yooni Banjul gisuma dara lu dul Banjul te gisuma dara lu dul Gambia soo demee ba sa tamit di séem Barrow gëstuwut Banjul de xam naa bés bu Banjul pere combat bi dinañ happy so I'm so happy about our president I'm so proud about our president man fu ma nekk léegi nag dama tiitar te fu ma gis APRC boo xam ne waaw pere nga pour ñëw dama la encourage dama la wax dama laa lifin fu ma toppa dama laa ñaa ne la ñëwal because man bi deserve na ko wax dëgg fa ne yàlla deserve na ko so dama ñaan suma mbokki APRC boo xam ne pere nga pour ñëw rek naa la indi dinaa waxtaan ak yow ba nga accept ma xool bara ma loof ko su génnee sax wala mu génn si biti wala mu ma gis ko si tere dama dee toog si biir kër bi mu ne leen o oh, rafet jàngi nii bilaay moo rafet su ko defee nga dégg ne ma leen dafa baax dafa rafet xool parce que baro mënoon naa ñoo jël di ñu treat comme ni ñu fi nekkee woon ni fi suma waa ji nekk woon wante non fi lu neex waay wax lu neex waay def baro su mu ngee dégga wala mu ngee fayeku du baax wante dafa jël banta mu ko sañ si noppaamee xool ci kanam rek foo mu ne la bunti kanam moom bunt kanam rek ñoo awee ñu nekk ci gannaawam dañoo xaar bunti kanam rek la ñoo awee te dañoo dem ba moom dañoo ànd ak moom ba last minute incha allahu rabbi man Aida dama ànd ak boro ba last minute eh, Banjul am soo am naa confident mi ne suñ ko mayee mu toog karosa dinañu ko defal lampa dinañu ko sampal 2021 bi we do wa level best ne nañ ko delloo delloo njukkal bi moo nekk karta bi